salaamaaleykum gaay yi salaamaaleykum gars yi ku ne xam na ne Wally Seck ak Akon gisee nan mu nekk image bu rafet yaa ngi dégg loolu dama cee kontaan dama ko gis suba gi nii yeewu sama xol dafa sedd mais Akon lii nag ba nga ko waree def dafa yàgg Wally sa rakk la Wally c'est ton petit frère yéen a bokk Sénégal naanaan la ngay naanaan ku jar a jàppale la jàppale leen Wally Seck ngir yàlla ak yonent bi fi mu bëgg a yegg mu yegg fa moom mooy sunu Beyoncé mooy sunu Nicki Minaj Wally Seck mooy sunu Chris Brown ah mooy sunu Justin Bieber ah Wally Seck daal mooy sunu lépp dimbali leen ñu ngir yàlla ngeen jàppale Wally Seck képp koo xam ne nii Wally Seck man moom ku ko jàppale damay sant ki yàlla na ko yàlla defal jàmm gis ngeen teraanga yi mu defal waa jàmm gën ah defal ko waa Kër Masaar waaye yàlla na yàlla guddal fanam fu mu dem toj ko sargal na ni sugu Sénégal international fu mu dem siggil Sénégal jàppale leen ko ngir yàlla merci beaucoup kontaan naa jërë ngeen jëf. salaamaaleykum gars salaamaaleykum gars yi ku ne xam na ne Wally Seck ak Akon gisee nan mu nekk image bu rafet yaa ngi dégg loolu dama cee kontaan dama ko gis suba gi nii yeewu sama xol dafa sedd mais Akon lii nag ba nga ko waree def dafa yàgg Wally sa rakk la Wally c'est ton petit frère yéen a bokk Sénégal naanaan la ngay naanaan ku jar a jàppale la jàppale leen Wally Seck ngir yàlla ak Yonent bi fi mu bëgg a yegg mu yegg fa moom mooy sunu Beyoncé mooy sunu Nicki Minaj Wally Seck mooy sunu Chris Brown ah mooy sunu Justin Bieber ah Wally Seck daal mooy sunu lépp dimbali leen ñu ngir yàlla ngeen jàppale Wally Seck képp koo xam ne nii Wally Seck man moom ko jàppale damay sant kii yàlla ko yàlla defal jàmm gis ngeen teraanga yi mu defal waa jàmm gën ah defal ko waa Kër Masaar waaye yàlla yàlla guddal fanam fu mu dem toj ko sargal na misugu Sénégal international fu mu dem siggil Sénégal jàppale leen ko ngir yàlla merci beaucoup kontaan naa jërë ngeen jëf.